lan ndox maa nga fees dell ca Tuubaa ci fan yu néew dox suñu digganteeg màggal gi Allah l'observateur moo ñu ko xamal fa wax ne dëkk ba fa fees dell quartier yu bari barab yu bari ndox maa ngi ca kër yaak mbedd ya askan wa nekk ci ak jaaxle yow seetal ñeen nag ci askano fa ñoo wax ne ñoom xamuñ sax fu ñu teg seen cin yi ngir mën a togg añ direct news ne màggal ak ren gii kay buñ moytuwut ca biir ndox ma la ko askan way defee de ndax état bu Sénégal fa ñoo lajj ba xalangu ci jëlee fa ndox ma turbine yéen kaay ne gouvernement bi kay fa ñoo tële wàllu mbënd mi inondation yi dara ba daree boola jeex mënuñ ko ci te yow fa ngay xool sept cent cinquante milliards neneen def nañ ko ci wàllu mbënd mi te tey la wàllu gën a ay alerte yéen kaay na ko pourtant jëruñ ñu dénk wàllu biir réew mi Antoine Diome moo yey di 92 pour cent ci mboolem engagement diggé yoo xam ne nguur gi fa ko diggoon nu mu waroon a def Touba bu dee téeméer la juróom-ñeen fukk ak ñaar yëpp def nañ ko te moom jëwriñ ji fa caa kontaan naka noona comité d'organisation màggal gi ba ci ko yor kàddu xalifa ba ñoom it fañ cee kontaan yaaw fa ngay xool ñeenti junne ak juróomi téeméeri policier ak ñaari junne ak juróomi téeméeri gendarme wàllug wér gi yaram ga matuwaay jël nañ ko courant ba Senelec fa dalal xëy na courant du ci màggal gi matuwaay yëpp jël nañ ko rawatina nag ñàkkum ndox ma daan am ci màggal gi yéene kaay dëggal ko ne état bi kay 92 pour cent ci ay engagement am ca Touba def na ko ci màggal gi ñaar fukki camion citerne lu ëpp ñaari million litre ndox fas yéene nañ ko faa séddale info yéene kaay mel ni ku leen hey yéen a ngi wax rek waaye faa bëgg ngeen xam ne màggal gi fa bëri ay manquement te kilifa yi ñu dénk organisation ba ak Serigne Bass Abdou Khadre ñoom ñëpp wax nañ ko état bi Antoine Diome lii doxut lii doxut lii des na defar leen lii xamaguñ laa jàmbat ya woon na de seen ndaje ma kaay kilifa réew mi nag président de la république Macky Sall moom ni ki suba lay dem Touba ngir màggal gi dem siyaara ji xalifa ba keneen ko dem siyaara ji xalifa bi ba pare mooy xalifa sàll enquête yéen a kaay ñu ko xamal sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke xalifa ba ba mu dalalee xalifa sàll fa ko wax na ko sa doxalin dafay dalal man sama xel ndax yow faa gis na daal li ngay dox yëpp mooy mbiru jàmm le mandat yéen a kaay dëggal ko na xalifa sàll kay xalifa général des mourides fa ko dalal ba pare ñaanal ko yàlla leer laneen lu leer ba yegg ca naan yaaw fa ngay xool xam nga docteur Diallo Diop fa waxoon ne 2024 Pastef fa ciy bokk ci wote yi moo xam Sonko nekk seen candidat wala ñu ut keneen mu nekk seen candidat maanaam plan B waaye tey nag El Malick Ndiaye bu Pastef ak Ayib Dafe fañ koo weddi na ko gis nga loolu sa xalaat la waaye Pastef benn candidat lañ am mooy Ousmane Sonko amuñ plan A amuñ plan B waxuma la ak C xanaa ay wax fay jeex xutuñ keneen tànnuñ keneen Sonko rek 2024 mooy suñ candidat Libération bi beneen xibaar buy dëgg ma nga ca Vox Populi Serigne Habib Sy Dabakh ba ci njiitiram Macky Sall fa sàkku ci moom mu bàyyi Ousmane Sonko mu génn kaso mu hëlbatiku ñaan Ousmane Sonko mu bàyyi grève de la faim ba maanaam su ko waa këram yi toggalee lekk wala ñu ngóolu na lekk su fekkee tamit fañ koo xaayee na sa waa kër yi duñ la jox lekk looloo tax mu amal grève de la faim kon nag na continuer ndax daraa ca wóorut yor yor yéene kaay ne fa xam ay patriotes yoo xam ne ay héros lañ te système bi moo leen sànk bañ teg leen loxo yaw seetal Fala Fleur Ndeye Mati Sarr Niang Fatima Zahra Wague Ndaw Pascaline kaso gi réew mi yéen a kaay na ko voilà lu ëpp junne doomu aadama yooyu ñu tëj ci kaso gi te la ca gën a bëri ñu ne politique a tax waa F24 yi fa ñoo dem ca mbootaayu xeet ya bànqaas ba yor àq ak yelleefu doomu aadama fañ faa jéebaane njiitiram Macky Sall démocratie gu ginnaaw ñàkk am liberté jàpp tëj kaso gu jégg dayo ndax politique Ousmane Sonko mii nga xamante ne mu nga ca diggante dund ak dee ñu war koo bàyyi lii yëpp ak mboolam luy dox ci réew mi ci salfaane àq ak yelleefu doomu aadama F24 ca njiital bu mag demoon ca tubaab ya mbootaayu xeet leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne jamono ji tournée nationale dem seeti askan wi moom la woy politique yi tàmbali lépp ngir waajal 2024 wal fajiri yéen a kaay ñu ko xamal l'évidence yéen kaay na ko Mouhamadou Moustapha Diagne moom da nee na Boun Abdallah Dionne moom lay jàppale ngir mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar Sud Quotidien moom di ñu xamal ne mbirum Karim Wade yëf yi taq na suuf de ba léegi jeexagut de wàllu nationalité candidat fa ñuy xëccoo ku nekk bëgg a jiite demal ca diiwaanu Ndar Kolda Thiès luga Géejawaay ña nga reyante de <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nan ñi ja mooy ne Cheikh Baara Ndiaye léegi génn na réanimation diggante dund ak dee ba mu ne woon xaw naa fiix ba génne nañ ko yóbbu ko pavillon spécial wal fajiri yéen a kaay ñu ko xamal la mu ñu xamal moom libération mooy BRT mooy biis yu gudd yooyu xam ne fañ koo tàmbalee essayé ca Ndakaaru benn biis fa saaral jàdd yoonam ba li ni mel fi mu toll fa jur coow liggéey beeg jaar na fi ak dugg na faa ku nekk sa xalaat la mu xalaat ba wax ko moom tamit mooy yéen a kaay mooy nguurug Sénégal fa ñoo lajj daanu ba xalangu ci wàllu wàññi njëgu lu bi tey la lu yaas bi gën a cher l'évidence yéen a kaay moom fa xëy du ñu xamal ne secteur bi nga xam ne moo jëm ci wàllu papeterie fi mu toll ni fa feebar de ñoom ña ngay ay jafe-jafe ndaw yu bëri yu jànkuwante ak ay ay jafe-jafe wàllu xëy liggéey ci seen réew mi di Sénégal ba tax ñu dugg ci gaal yi Barça mbaa Barsaq source a fa ñoo xamal ne dëgg la Barça bi bëri na mbëkk mi waaye tamit Nicaragua gële mooy ñi dagg bii avion mujj jaar Mexique dugg Amérique loolu fi mu toll nii ndaw ñu bëri góor ak jigéen ba ci ay mag sax ña ngi fay jaar ngir dem Amérique ah, yaaw fa ngay xool dëgg la fa ngay joxe xaalis bu bari waaye moo gën a wóor gaal yi dugg ci géej gi waaye sur saa fa nettali benn xale bu góor boo xam ne lu daw yaram te métti moo ko dal ah, yaaw seetal xay mbokkam fa ñoo dajale mu dajale lam xam ak lu mu xamul jaay lépp dugg avion jaar ci yoonu Mexique bi dem ba dugg Amérique waaye ndeysaan bés bi mu yegg Amérique ci la feebar faatu ñàkk ba kanam ay dem ngir tekki ji daani doole far nga yegg faatu jotoo faa liggéey dara jotoo faa liggéey dara métti na lool yàlla rek ko def